إن قلم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء دلوكو سي ففاي دوباتاك كالفا كورنانغو سوكا باينيا سانتا نينا فاي مجينيك واروغار غار تيبيبو طالب باتاخ سور غامبا خادم صاحب الفايدة التجانية عبد مظهر الزاتي دي شيخ باي مأمون إبراهيم نيس ووتي بس بمك جورني انترناسيونال دلوكو سي بغباي باي لغيال باي sant Baye Niass al yawmul aalami lil awdati ila koosi mahabbatan wa xidmatan wa shukran de Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu journée internationale dellu koosi bëgg Baye liggéeyal Baye sant Baye Niass le 23 décembre 2023 ca koosi Baye bés la boo xam ne Baye Niass ci boppam moo santaane woon ngir ñu dellu koosi nañ déglu kàddoom yi. ginaaw bu mu waxee ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaa'ani wa ana fii koosi ba wax ja jeex ba tax baay Maamun Ñas dellu koosi ba pare nag di woo taalibe yi muxaddam yi njaboot gi le 23 décembre bés bu mag ci diine ji bés bu màgg ci xadara bi ñépp di ko fuglu koosi baay kenn du fa xaj mbooloo mu bari bay rëj-rëjloo Sénégal ba bitim réew ndax bésu yokkute la kenn warta am ngànt képp ko jàpp ci bés bi nag na la wóor ne yaa ngi xidmaal Baay Ñas te fa wax ne képp ku ko fa ngay jot sa càkkutéef programme ba fa ñuy xëy jàng alquran set setal dëkk ba amal exposition ba pare visiter barab yu sell ya cérémonie officielle ba 15 heures 30 17 heures toftal ca conférence Cheikh abdul Baqi Cheikh Hassan Dem borom xam-xam bu mag ba fa saxa boole ca moo koy amal temba ba muy waxtaanee mooy na Baay Ñas daan dundee ca Koosi taalibe yi mën cee jàngee fañ fay xamal guddik zikar mboolem zakiru xadara bi ña ngi leen cay o Cheikh Ibrahima Ndaw moo ca jiitu aw sa yeeg naar yi ñëppay ñëw gàmmu ga vingt une heure lay tàmbali ñu toftalaat ca zikkar une heure du matin ci la causerie waxtaan wu mag ka koy animé mooy xaadimu saaxibul fayda Cheikh Ibrahima Mamoun yes ñu gën ko xam ci Baye Mamoun ay ndaw waxtaan wu nar a neex fay ànd ak xaal ànd xam-xam bés ba nag mi ngi am ci ndigalu alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahish Cheikh Mouhamadul Mahish Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma sous le haut patronage fañ koo dara jale kànga mu faydu bi mooy Serigne Aliou Cissé Cissé Serigne Mbaye Niass Serigne Ma Abdou Niang Serigne Ibra Fall Cheikh Mouhamad Ould Nahwi Mauritanie Cheikh Hadi Ould Seydi Mauritanie Cheikhaani Manna Abba Mauritanie Cheikh Mouhamadul Michri Mauritanie fañ cay rendre hommage Cheikh Arabi Ibrahima Niass Cheikh Abdoulahi Ibrahima Niass Cheikh Mansour Mamoun Ibrahima Niass Maam Abdou Mati Thiam koo si mbitéyeen Assayida Fatimatu Zahra bintu Cheikh Ibrahima Niass Assayida Khadi Fati Ibrahima bintu Cheikh Ibrahima Niass Tayiba Asayida Mariam bintu Cheikh Ibrahima Niass xaadimatul Qur'an Asayida Umu Kalsum Ibrahima Niass Cheikh Baye Mamoun Ibrahima Niass gàcce ngalaama xaw nga tànki waajur ya de wàccoo sa xam fa bëgg Baye jeex ci moom tak képp koy nax ci Baye Niass ngay jaar fa baax fa tabe lu xam joxe ko nit ku xam njëriñ ku laa biir faa lay xamal lenn taalibe yi fañ lay safoo xadara bi fa lay sagoo diina ji di la tiitaroo ay Allahu wa nasarak min habibi